ci ki nga xamante ne mooy Jibi Ndiaye borom Jibson production muy waajal bis nag mu tëgg ki nga xamante ne mooy Baye Mandiaye ak nag def na démb open press am dégg nga li mu yóbbandi ki nga xamante ne mooy Tmax doy ko sax gàllax na dañuy jox mbër mi mu nuyoo su nuyoo pare ñu tàmbali li nga xamante ne mooy Tmax mooy question yi Tmax nuyu nañu waaw ñu ngi leen di fay gannaaw bañ sant yàlla julli ci yonent bi di sant suñu ñaari waajur xam du nuyu waa koñ bi yëpp si tamariñ Derklé commune bi maa ngi nuyu ñëpp di jégalu waa koñ bi nag di jégalu waa koñ bi yëpp nag di jégalu waa koñ bi yëpp waaw ñu di jégalu waa koñ bi yëpp waaw di leen wax ne ñu baal ñu àq di leen wax ne seen doom laa ñu ñaanal ma fasaaleel ma ma dem jëli ndam yi ñu bisiwaat feetee ko fii si tamariñ Derklé du nuyu waa Grand Yoff Arafat xaar yàlla du nuyu waa Jëppal Malika si tamariñ benn baraak du nuyu ñëpp daal képp ku fi teew rek teem ak sa mi ngi lay sant di la gërëm di gërëm autorité yi fi teew yëpp di gërëm ardo day jàpp ci affaire yi DG Port bi ñu ngi koy xaar si biir yi monsieur Birane Ngom ñu ngi koy sant di ko gërëm bu baax a baax am na nu mu jot a def benn pas ñu ngi koy xaar mu ñëwaat defaat beneen pas waaw di di di di woo Amady Faye mu ñëw jàpp ci mi ngi ciy jàpp sax. mais bala ngaa woote ñëw naa woote ñëw naa woote ñëw naa woote ñëw ci adversaire bi. ñëwal ci adversaire bi ndax gis nañu ne durant mm-hmm. combat bi Tmax dafa làqatu woon. Mm-hmm. combat bi moo ko dayoo dayoo bi moo koy jaroon wala la ndax kenn gisu la boobu ba tey ku la wootee mag si nekk fan nga nekkoon ak combat bi fan la la tool waa combat bi boobu léegi xam nga ñu ngi nekk suñu ruku làqatu nekk ak suñu staff ñu ñuy wax xam nga ñun ñu mbër moo xam ne day tërërër yi dañoo am staff. ñu ñuy wax li ñu war a def ak li ñu war a def ñu waree génn ñu na ñu génn leen ñu war a génn ñu ne ñu bu leen génn te ki ñuy bëreel waxkat la wax ji la moom nañ ko bàyyi ak wax ji rek làqatu bàyyi ko muy wax rek ba stade ñu xool bu demee ba stade ñu xool buñ tuddee ko xam na dalante naa mbër dëgg. bu ngeen dalantee di nga xamante ne dalantee nga mbër waa géej waay di ko gunge ndax nee na combat bi combat capital la da koo jaral. su arbitre bi tëjee ba suñ tëjee barrière yi. Mhm. yéen ñaar kese ci di ngeen kooraakoor samp jaaga xeex xeex bu métti ndax nee na dina la duma balaa mu laa daan. ñi may gunge ñooy ëpp ñu koy gunge fuf man zone 7B zone 4B ñëpp moy gunge si kàb bi yëpp ñëpp may gunge te combat bi la ñuy xam kan mooy Tmax combat bi la ñuy xam kan mooy Tmax ñun fo foowuñu foolowuñu ñun fii loolu lañ xam bagaar ak gixaat ñoo ko fi dàq muy ci nawetaan muy ci bëre muy ci xeex muy ci lépp commune bi fii ku leen xamul dégg leen yaay walaay te ñun doom commune bi lañ waaw. waaw ñu ngi lay fay. nga dugg ci xam ne dëkk bu xiif victoire nag actuellement muy Guédiawaye. Mhm. tey ki nga xam ne mooy sa adversaire. ñu doon doyoo ko galaxndiku. Mhm. dëkk Guédiawaye ku ne xam ne ne Guédiawaye li fa nekk ak tension bi fa nekk. Mhm. tey lan moo la war a mën a fekk ci ak combat bi la la war a mën a yóbbu ak lan la la jaral ci combat bi. waaw combat bi xam fi mu ñu mën a yóbbu ak xam lim ñu jaral moo tax ma nekk ci àll bi 4 mois di entraîner di yéeg diin di entraîner di tëdd di nelaw. ku ma xool ne maa liggéey bi may bëreeg Zizane demeewul woon nii te Zizane moo dàq bëreet Baye ma Ndiaye fuuf ëpp ko expérience ëpp ko ay combat ëpp ko lépp te dama ñëw jël sama temps bëreeg moom kon booy bi nii li muy wax dafa bëri xale xam nga la lañ ko xamee entraîné tëdd nalaw lekk ba suur tëdd nalaw pas wax ju bëri di jëf wàññi wax ji mais booy bi day mel la lekk comme bëy kanaara la. tey ndalu rek. luy ñëwaat. tey ndalu sant baax di gërëm coach yi ñoom ñoo war ak Pape Lo Prière ñëpp. waaw. waaw. tey nag suñu toll ci période bu métti période boo xam ne jeunesse bi. Mhm. xamuñu fu ñuy taxaw. Mhm. maanaam euh, jaxasoo bi bëri na ci réew mi. Mhm. ban appel ngay def ci jeunesse bi ci par exemple violence yi nga xam ne mi nga am ci ci ci ci combat yi. violence yi nga xam ne li nga am ci stade ban message nga ciy lancé ci say supporters ñu bëri ci jàmm na ci jàmm. wa di wax ne dëkk bi dañ dal lek xam nga te xam ne dëkk bi moom jàmm rek a fi mën a am waaw du lu ñu liggéey nag du na ko fi liggéey lu dul suñu maam yu baax yi waaw dëkk bi jàmm jëm am suñu mag yu baax yi nga xam ne ñoo jiite diine ñi ñoo ko fi def kon ñu ngi leen ciy sant di leen gërëm fii dara du fi am jàmm rek a fi am dëkk bi dëkk bi jàmm rek moo fi am waaw di wax ne supporters yi nañ waajal préparé wu ku leen provoqué bu leen ko jege bu leen ko laal yen dem leen gérer ci kaw ma gérer ci suuf man li ma naa ko def booba léegi maa ngi laaxatu di liggéey gérer leen ci kaw ma gérer ci suuf ñu ñëw su ta mariñ fii yow grand xaar yàlla neexal ko ba mu neex dem feete ji ko Malika saa bu ko defee di gërëm gars yi nga xam ne dañoo sonn ci man combat ba mu taxawee ba léegi amuñu jàmm barke alxuraan ku ci mel ni junior kii amul jàmm barke alxuraan mati ak Pablo dafa bàyyi voyage am ñëw di ci jàpp fourrière gars barke sëñ Bamba lu nekk def nañ ko ci combat bi ak ñoom xam nga gars yëpp ñu leen sant di leen gërëm ñoom maxaali gars yëpp jàpp nañ ci xam nga di woo autorité nag ñeneen ñi ñëwaguñu di woo DG port bi CSE e ñëpp waaw DG Port maa ngi leen di woo ñu ñëw jàpp ci combat bi di woo Birane Ngom mu ñëwaat di woo Amady Faye di woo suñu papa Pape Diallo di woo suñu grand kii Samba Sall Pape ñu ngi koy woo pour mu ñëw jàpp ci combat bi waaw di woowaat Ardo Ardo dañoo jàpp ci biir tamit bul dem noon Samba Sall Petit Bàcc yaa ami maar xam nga di woo ñu ñëw jàpp ci dañ cee war a jàpp parce que seen doom moo am grand combat lii du ko kafe du ma ko caaxaanee sama àdduna grand combat la combat ko moom Mati Baye ma Ndiaye am na problème barke alquranu karim gars yi dañ ma yónni yàkkamti ma taxawaalu moo waratul taxawaalu waratuma di sant waa Malika nag jóge nañ ba Malika ñëw teew fii maa ngi sant di leen gërëm waa Gambi waa Gambi ñu ngi ci yoon bi di ñëw waaw waa Gambi ñu ngi leen di dalal bu ñu ñëwee di woo waa xaar yàlla yëpp ñu ngi leen sant di leen gërëm ñëpp xaar yàlla danaa yof fii waaw liberté 6 jëppal Bourguiba liberté 4 liberté 5 ah di gërëm Baye Fall Cité Marine yëpp di bu sëñ Modou Kara kooku ba combat bi taxawee ba léegi man ay ganaar laay lekk ndawal lépp Serigne Fall maa ngi lay sant gërëm jàpp na ci combat bi Serigne Fall ay dara dundal di gërëm ñoom Matar li xam nga Fallou Diop ak Pape Malick Mohamed Mohamed Diop xam nga di gërëm ñëpp di gërëm sa benn ganaar ak Abdou ko fàttee gërëm keroog Abdou Ngom waaw Abdou Ngom séeréer bi Malika bu Malika waa Diourbel yi maa ngi lay sant gërëm di gërëm Sine Mor Sine Mor ñaan yi na gën a yokk Baye Fall gis nañ ñaan yi waa Diourbel ñoom tuuti xam leen sant leen gërëm yéen waa kër yëpp ñu leen wax leen ñaan jàpp waaw combat bi Baye Mandiaye di nga dem Ardo di nga ñëwaat demaat Ardo ñëwaat demaat Ardo ñëwaat ba muy ñett yoon ma doog la daan Ousmane Sy bu yéeri taar dama ko fàtte Ousmane Sy bu yéeri taar maa ngi koy woo mu ñëw jàpp bu baax a yaayam waaw di woo ñëpp. Ah, journaliste yi seet naa leen gërëm leen. sant naa leen bu baax thank you